asalaamaaleykum wa rahmatullah wa maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal seen chaîne YouTube benn Makhtar di ñëw indi leen tey mooy juróom lu bés ci secret yi mu leen di jox yi dem ci diggante yi kon suba moo ci des bu ko defee ñu clôture semaine bi secret yi leen di jox nag yu jëm ci wàllu diggante yi li ci gën a tax sax ñu koy joxe mooy ñiy sëy ndaxte sëy boo jëlee eh, lu ci gën a ëpp daanaka di faral di neex di ñax suñ mbokku jigéen ñi ak suñ mbokku góor ñi na góor ñi yërëm jigéen ñi te xam ne jigéen dañ koy muñal mun na def lu ne waaye nga muñal ko te comprendre ko bi ngeen amee doom itam nga xool si njaboot gi dégg nga eh, yu bëree bari bari mu ngeen di ko maslaa benn nit matut nit boo nekkee mun ngaa naxtante ak moom ba teg ko fi nga bëgg yéen jigéen ñi itam ngeen respecté seen borom kër yi bëgg leen ngeen muñ jigéen day muñ. lépp lu la naqadi rek muñ ko xëy na nag am na si yoo xam ne kenn du ko muñ loolu lu ñuy waxtaanee la wala lu ñuy regle waaye ngeen muñ góor ñi ngeen muñal jigéen ñi jigéen ñi ngeen muñ ngeen dimbalante te ngeen xool si njaboot gi leen yàlla di sédd wala itam ki nga xam ne moom moo bàyyi kër baayam ñëw sëyal la yow mi nga bàyyi jigéen ñëpp ñëw takk ko kon bañantewu leen kon yal na leen yàlla aar sàmm leen yal yàlla dimbale leen ñi sëyagut yàlla mel na borom kër yi gën si ñoom ñi nga xam ne ñu ngi sëy yàlla neexal seen sëy incha allah waaw kon tey secret bi nga xamante ne tey moom laa leen di jox muy euh, li ngeen gis nii yow ma la ala afwaahihim euh, dafa nekk mm, secret bu am solo kon maa leen di ñaan ngeen teewlu ma bu baax a baax a baax ngeen bind ko kon mu ko waxee da ngeen def kun la rahmaani rahim ngeen bind wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim tasliman ngeen bind yow ma naxtimu ala afwaahihim dégg nga soo paree nga tëjoo ak allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim si biir miim yi bu ngeen xoolee si biir miim yi yow ma naxti ma alaaf waaye maa ngi fi bind summun bukkumun umyun dégg nga bu ko defee euh, si biir miim yooyu nekk si biir moom ngay bind ki bëgg na turam ne si kaw mu bëgg turam ne si suuf nga bind ko si ñetti miim yi soo paree ngeen tëj bu ngeen gisee ñaari miim ñoo nekk si sa kaas kaas bi ne ñaari miim a fa ne kon da ngeen di tëj boo bindee tur si biir ba pare da ngay tëj ñaari miim yëpp ba si biir ak ba si biti dégg nga soo paree da nga jël téere boobu lam ko. da nga jël kayit gi lank ba nekk téere nga takk ko sa ndigg boo ko mën takk sa ndigg itam nga di ko takk sa buntu néeg wala sa quelque part daal si kër gi fenn nga di ko fa takk dana tax jàmm dana am si ay diggante yooyu même bu dee nit ki da laa sax mën nga ko def fi nga nekk yàlla dana boole seen digg dara taxal ko yéen yàlla dafa leen jàmm dafa leen tawféex ñu ngi yëm fii asalaamaaleykum wa rahmatullah